jël ñaari euh, kii rek nu ko mën a caractère contracté ko euh, muy citoyen ak vingt et unième citoyen na xam nu ñu ko waxee en wolof mais jàpp naa ne citoyen mooy nit koo xamante ni jàpp reconnaître nañ la ay droit euh, ak yenn devoir yi nga am également à l'égard sur sa réew vingt et un xëy na mooy siècle bi ñu nekk vingt et unième siècle waaye ñu jortu ne vingt et unième siècle aussi du nekkul rek ñi nga xam ne ñoo juddu en mille ñu judd également avant avant mille Euh, ci lañ bokk parce que toujours ñu ngi exister ñu ngi dund comme ñun alors ñu jàppale ne loolu lu baax la euh, jéem a xool ni ñuy rassembler ay nit ñu bokk fu fu bëri bañ a nekk seulement ay étudiants nekk ay professionnels nekk ay universitaires nekk ay jeunes daal de manière générale ak ñu xam ne ñu activé wu pour que mbir yi mën a dox ñu jëm leen boole am même vision bokk même vision pour mën a doxal daal li nga xamante ni war nañ ko doxal balaa ñuy génn àdduna. maanaam Sénégal lañ ko xamee kon mun nañ sax wax ni que citoyen 21 21 bi mun nañ ko jëlee ci 221 mais dafa am loo xamante ne tamit dafa nekk loo xam ne dafa am solo mooy citoyenneté parce que tey mënuñu développer suñu dëkk suñu dëkk yoo xamante ne ñoo ngi euh, Afrique sans pour ñu jaar ci li nga xamante ne mooy citoyenneté dafa nekk loo xam ne dafa am solo dafa nekk loo xamante ne euh, képp. ci ni nga mel da nga nar am lu ñu wax citoyenneté pour mën a participer ci sa développement wu dëkk. Euh, mën nañ intervenir ci fànn yëpp mais fànn bu ñu gën a euh, xëy na insister mooy côté conscientisation sensibilisation parce que gis ngeen ne Afrique moom li yàlla xam euh, doy na nit ñi xëy na dem nañ école jàng nañ nit ñi fréquenté nañ école yi gën a mag. ci réew mi nit ñi dem nañ euh, si yenn structures yi dafa liggéey nit ñi dem nañ fenn yenn association yi dafa nekk mais boo xoolee culture citoyenneté wala euh, valeur de citoyenneté ñoom dañ koy méconnaître sax dañ ko duñ ko xam déggantaan léegi ça ne veut pas dire que ñun ñoo am monopole euh, côté xam-xam beeg yooyu noonu pour mën leen ko jàngal mais ñu bëgg leen inspirer ci suñu suñu suñu suñu comportement suñu action suñu conduite yu jëm a xool ba euh, ñun li ñuy def naka la mën a amee impact ci ñoom ñi nga xamante ni xëy na xamuñu valeur bi ñuy euh, bu ñuy défendre wala boog li ñu doon ñoom dëggantaan ak citoyenneté comme ni ko kii Edouard waxee dafa loo nekk loo xamante ni dafa dafa dafa dafa flou en même temps ci yenn ñenn ñenn bopp yi te lu simple la su dul jël ne yow da nga bokk ci réew te réew mi am nga am bala nga ko delloo njëkkal ci sa sa manière de fair wala si sa comportement wala si sa action au jour bañu jàpp ne rek la vie se résume yeewu ndikk ba suur añ añ ba xam la woon waxee añ reer bëgg a dem dem si sa is dem si itte bopp daal alors que réew mi tey pour mën a dem xëy na sa sa paar bi ngi ci bi ngi ci bi ngi ciy teg euh, dina tax mu gën a mën a dem mais yow bul jàpp ne rek sama légende personnelle moom intéressé non non non réew mi aussi war na mën a dem donc sensibilisation fànn bu mag la beneen fànn bi mooy volet éducation gis ngeen ñu ngi organiser symposium incha allah je vais en parler peut-être euh, éducation comment faire pour que valeurs yi valeurs yi pas valeur religieuse xëy na mais valeur cardinale yi war a tey gouverner suñu suñu suñu suñu suñu conduite de vie suñu suñu suñu comportement va ah valeur yooyu gis nañ naxasaay na ñëpp koy jooy ah léegi ñun ñu xool ne euh, façon mbirum éducation lu lu xaw doy waar la ku nekk war nga mën a xëy na recevoir éducation sa kër yooyu noonu mais boo xoolee mbedd mi moom pour ñu éduquer leen day jafe voilà day jafe donc il faut que ñu jéem a xool ñi nga xamante ni jàng nañ ak ñi nga xamante ni jànguñu jëm leen boole ci benn association ñu jéem a xool nag yan valeur lañu mën a promouvoir pour que yenn comportement yi mu mën a jeex ci réew mi mu mën a nekk loo xamante en tout cas dañ koy waxtaanee bu njëkkoon mais suñu dëkk yi Afrique en général euh, ndaw yi ñoo ëpp te dama bëggoon wax ni que ndaw yi narul nekk loo xam ne problématique narul nekk problématique dafa nar a nekk benn force boo xamante ne muy nguur gi muy état bi muy politique yi muy ñëpp acteur suñu société bi appuyer wu pour enclencher benn benn dynamique positive pour euh, euh, def en sorte que suñu dëkk yi atteindre lu ñuy wax développement wala émergence ñaar bi mooy citoyenneté nekkul loo xamante ne dañ koy def euh, saay su amee ay élection wala ay ñu invité la ci ci télé télévision yi wala ci ay rajo nga nga wax ci citoyenneté dafa nekk loo xamante ne dafa nar a nekk action de tous les jours au quotidien voilà moo moo baa ngi noonu au quotidien ñetteel bi mooy euh, citoyenneté bi tamit man damay wax ni que jeunes yi étant donné que ñu ñoo ñu ñoo ëpp ci ci ci suñu dëkk dañoo nar a engagé wu kon intérêt intérêt personnel dañ kon nar a tegee fële en deuxième position en première position ñu jël nga xam ne mooy intérêt général parce que même si si général suñu dëkk mun nga ci gis sa intérêt personnel te loolu la ñuy woowee servir sa nation don de soi joxe sa bopp ngir sa réew ngir sa dëkk ngir nit yi nga nit yi nga dëkkal ngir sa sa xarit yi ngir nit yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo ñoom ngay ñoom ngay partagé la. te bu ñu laajoon tey objectif citoyen objectif. yi euh, je crois que xëy mu ngi caché aussi li ma wax sànq. Euh, fexe rek parce que ñun lu ñu gën a intéressé aussi mooy Afrique dañu ne citoyen 21 mais bay ñu dara c'est certes mais continent africain euh, daf ñu gën a yitteel euh, objectif bu njëkk bi mooy promouvoir li ma wax sànq promouvoir l'éthique et et promouvoir l'éthique des comportements en tout cas promouvoir aussi li nga xamante ni mooy connaissance connaissance ñu promouvoir ko ñu fexe ba li nga xamante ni mooy ignorance jógee ci jógee ci en tout cas jógee ci ñu bëri parce que ignorance gis nañ ne mooy mooy mooy caractériser siècle bi ñu nekk ñi foog nañ ni xam nañ mais xamuñ dara parce que on les cache beaucoup de choses ñi xam bëgguñu ñi ñi xam ne xamuñu xam tu vois euh, donc il faut ñu repenser discours politique yi repenser yu bëri loolu nag euh, il faut ñu toog ay toog di réfléchir ensemble di jéem a la base document wala génne ñi nga xamante ni xëy na sa va faire mal aux politiques wala ñenn ñi donc mu gën a leer si bopp ñi ñi donc génnee ay xam-xam yu leer produire ay documents alors deuxièmement mooy ñu fexee ba aussi lu ñuy wax ñu dugg ci ñun def tey action action mooy wàcc ci terrain bi xam nga Edouard par exemple moom mi ngi am association Sen Vie moom mi ngi def liggéey bu mag ak ak ay xaritam ci côté boobu ñu ngi balayer ñu ngi nettoyer ñu ngi ñu ngi sensibiliser ñu ngi jàppale ay talibé ñu ngi def yëpp loolu mooy action citoyenne mais action citoyenne xëy na li ko li ko li fu muy reposer mooy action sociale donc ñaar yi mënuñu mënuñu mënuñ dem euh, ba mënul dem sans boobu mënul bàyyi morom bi léegi ñun comme amuñu ay moyens dëggantaan mais am nañ suñu force intellectuelle am ñu suñu force physique ñu permettre tey ñu mën a def organiser ay affaires yoo xamante ni mënuñ jàpp parce que bientôt dañuy organiser benn café solidaire boobu dañuy fexe invité association yëpp ñu jéem a xool ni ñuy def pour mën wàcc ci terrain bi voilà jéem a sensibiliser non seulement sensibiliser mais jàppale ñi ñu war a jàppale parce que aussi dépendance mi ngi commencé ci bi tubaab bi euh, gëmloo ñu ne ñun duñ dem si si sentiment boobu mooy dépendance ñu war a mën a dem bien sûr en fonction suñu suñu capacité en fonction suñu suñu volonté en fonction suñu pouvoir bi ñu yàlla may mais jàpp nañu amuñu yooyu yëpp amuñu ko ñun fa nax say alors ko ñu ngi si ñun donc il ñu fédérer les forces pour ñu émanciper émanciper wu donc l' action citoyenne donc favoriser action citoyenne sur le terrain bien sûr dans bien des domaines message message bu ngeen di lancé à la jeunesse ban message lay doon. bi mooy ku nekk na def param cest a dire dans ce domaine su fekkee yow journaliste nga étudiant en journalisme su fekkee yow étudiant en sciences politiques nga su fekkee yow étudiant en environnement et cetera ku nekk ci sa ci sa fi ngay fi ngay yëngoo sa activité nga def sa part comme sa yow soo tëddee sax di nga neraw te El Hadj Sanko wax na ko. Euh, am na loo xamante ne dafa nekk loo xam ne dafa important mooy engagement ak volonté c'est que mun nga am ay idées mais soo amul ñaar yu may wax nii mooy engagement ak volonté doo mën a continuer ay action wala maanaam di nga di nga commencer sax yenn action yi mais soo amul ferme volonté boo xamante ne gëm nga ni que soo ko defee yow si sa jëmu bopp di nga di nga di nga di nga am satisfaction te ba pare sa dëkk dina avancé loolu soo ko soo amulee doo mën a continuer action yi nga yi nga commencé te waa te citoyen citoyen 21 dafa nekk association boo xam ne organisation boo xam ne comme Senvi ñun engagement ak volonté moo nekk loo xam ne mooy essence bi nga xam ne moo ñu permettre ñu continuer suñu ay suñu ay action euh, symposium dafay dafay dafay fekk ne li ma wax sànq boo ne symposium euh, daan naan conférence conférence da benn thème la ñuy joxe xëy na nag thème bi gars yi mën nañ ko expliquer selon fànn yu bëri mën nañu am thématique yu bëri thématique connexe on dit yoo xamante ni ku nekk di nga jéem a xool noo koy aborder ak noo koy euh, disséquer quoi analyser ko en profondeur euh, loolu aussi euh, ñu buggoon cee taxaw parce que jàpp nañ ne étudiants yi nga xamante ni ñoom ñooy assurer relève xëy na la bon année yi di ñëw xëy na parce que jàpp ma ne man ne nit ñi am nañ même degré d' engagement comme ni ko kii waxee mais jàpp naa ne aussi am na ñu fa nekk xëy na bëgg nañ mel ne comme ñun wala bëgg nañ def comme ñun xam ñu war ñu doog a ñëw ñoom ñu xam ne après dañuy ñëw dañuy seetaan suñu suñuy affaire par par des voies vidéo seetaan ko ci ci yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen espace yi mais n'empêche euh, mën leen inspiré ci ci ci ni ñuy def parce que ma aussi nekk na loo xamante ni ki koy def da koy jàngat bu baax donc am nay objectif tamit am na objectif am na ay résultats attendus yaakaar naa document bi René travaillé na si euh, envoyé naa ko ko travaillé na si xam na carrément ne objectif am na ci am na am na aussi contexte et justification donc yooyu yëpp day firndeel ne am loo xamante ni namm nañ ko ci symposium bi donc pour mu leer euh, thématique bi nga xamante ni moom lañ ñu choisir cette année mooy gouvernance économique et politique en Afrique quelle perspective ñu ñu jàpp ne ñun xamuñu si gouvernance dara dara dara dara surtout gouvernance économique waxuma la politique nag moom xamuñu ci dara dara jàpp nañu daal politique mooy toog yeewu lire sa journal wala déglu ñi nga xamante ni ñooy politique et puis si sous la palabre yi ak wax. Euh, xamuñu gouvernance bien sûr bokk na ci et mooy mooy mal bi gën a profond épaisseur bi dafa gën a mag bu fekkente ne nit ñi dañuy dañuy tiital dañuy napp en tout cas di lëndëmal suñu xel ci fànn yu bëri te ñun jàng nañ moom tey mi ngi nii. mu ngi def master de science politique xam nu baax li politique man jàng naa communication jàng naa lettre liir naa xëy na mais am loo xamante ni xaw ma ko ci politique xaw ma ko ci gouvernance ma bokk ko samay moroom yu bëri bëri bëri léegi nu ñuy def mooy fexe ba rassembler étudiants yooyu yëpp ci benn salle woo ñi nga xamante ni ñoo xam xëy na am nañ benn expertise dem nañ euh, voyager nañ am ñoo xam ne ay journaliste comme yow am ñoo ñoo xamante ni xëy na nekkuñ journaliste mais au moins activiste lañ xam nañ carrément mbir ni ñuy def mu dem ñu boole leen ñeneen carrément ñu weccoo xalaat ñu échangé ñu produit benn document boo xamante ni après ñu ko a partager ci benn plateforme mooy campusactu point point com wala yeneen di plateforme yi de toute façon on va partager ça ba nit ñi xam ne carrément li ngeen doon yaakaar ci politique lii la résultat yaa ngi nii lii moo xeeb Afrique. Euh, politique dafa nekk lu noble xëy na ñu ngi koy defee Afrique ak Sénégal wala ak yeneen dëkk. moo moo nekk li nga xam ne naka sudul noonu mais politique dafa nekk loo xam ne dafa dafa noble politique soo koy def dangay ngay servir sa société da ngay da ngay mettre en en œuvre da ngay da ngay def ay action yoo xam ne pour faj doomu adama yi la pour pour résoudre problème bi nga xam ne moo nekk sa société léegi am na sax ay ay ndaw ñoom fari ndaw ñoom euh, ñoom Amidou Anne dañoo bind benn benn benn livre bi nga xam ne dañuy wax jeunesse bi ñu engagé wu en politique parce que politique dafa nekk loo xam ne dafa fépp la politique moo ngi fépp instant yi sax ñu ñoo ngi politique léegi El wax na ko sànq ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu mbokk yi euh, politique xamuñu ko noonu dañoo foog ne politique ngay yeewu sol sa costume ñëw taxaw si si si si rajo yi ak si télé yi di wax ci ci benn domaine non loolu du politique politique de comme nu ko waxee sànq dafa nekk loo xam ne dafa noob te pour xam ko tamit il faut nga nga am si ay quelques léegi symposium bi dinañ dinañ ci waxtaan léegi def en sorte ni que idées yu ñuy wax yëpp ci symposium bi samedi ñi mettre ko en pratique def ko euh, ci ci terrain bi comme ça moom action léegi xale yi ndaw yi jeunes yi mag yi ñu ñëpp ñu mën a xam lan mooy politique après ku nekk sa domaine rek nga mën a mettre en pratique say idées. lan mooy nekk seen kàddu bu mujj tey ci émission sociétale. voilà Abdoul euh, bon revenir ci ñaari mbir symposium bi. d'abord encore on va revenir sur ça parce que symposium ni ñu ko mën a waxee rek euh, dafay permettre ñu mettre en pratique yenn actions yi comme ni nga ko waxee xam ne mm, mbëbën nañ ko euh, parce que dañu jógee ci loolu document bu ñuy produire dañ koy proposer ay nit proposer ko sur le fond des gouvernants parce que ñoom aussi war nañ jàpp ne euh, jeunes yi am nañ droit de parole am nañ aussi loo xamante ni mën nañ ko def te mu war leen intéressé ñoom parce que ñi Euh, n'oubliez pas que am nañ formation bu ñu def jàng nañ xam nañ léegi li nga xamante ni xalaat nañ ko ci mbir mi pour mu mën a dox il faut ñu partager ko ñi nga xamante ni ñooy décider comme wax na ko sànq yoon bi ne ñun duñ décider ñoom ñooy décider mais ñoom tamit war nañ mën a xam ne ñun am nañ euh, possibilité di influencer ci ni réew mën a doxee positivement d'ailleurs mën a dox donc symposium bi daal ñuy woo ñëpp ci mbiru symposium nee na 18 samedi 18 la euh, à 10 heures à partir de 10 heures on Afrique institut bi supérieur bu nekk euh, sur la VDN euh, donc si VDN bi la nekk euh, institut Afrique samedi 18 incha allah du invité nañ ñu bëri am nañ 12 panélistes yow bokk nga ci ak ñeen ak ñeneen bokk nañ ci ñu mën a ràññee Ousmane Seck président d'une grande ONG africaine ñu mën cee ràññee Assane Niang qui est également administrateur une grande boîte ici Bled ñu mën cee ràññee Ngor Dieng donc un grand psychologue ñu mën cee ràññee Ousmane Badiane conseil technique à la primature ñu mën cee ràññee monsieur euh, Mamadou Sy Albert un grand consultant monsieur grand écrivain ñu mën cee ràññee en tout cas ñu bëri ñu nga xamante ni décidé nañ envoyé nañ par mail confirmé nañ dañuy ñëw donc joxe nañ seen kaddu par mail ne dañuy ñëw si pas plus tard que donc am aussi ay invité ñoo xam ne ay jeunes lañ ay jeunes yoo xam ne engagé am nañ seen engagement wane nañ seen bopp ci mbirum mbirum mbirum euh, influence politique ak marketing politique donc ñu jéem a xool loolu yëpp ni ñu koy jéem a travailler pour que mbir mi mën a avancer ci kanam dem ci kanam beneen bi mooy remercier leen comme ni ko waxee euh, ci ni ngeen ñu possibilité bi ngeen ñu jox ñu espérer ne di ngeen ñëw couvrir événement bi voilà jox ko beneen dimension aussi parce que bëgg nañ ni nga xamante ni mooy société bi ngeen def di ngeen di jéem di ngeen di sensibiliser ñoom aussi ñu atteindre leen euh, d'une certaine façon ñu xam ne carrément y a de bonnes choses qui par des par par des jeunes. Euh, qui, et qui veulent inspirer bien sûr d'autres jeunes, même si on ne peut pas inspirer tout le monde, à faire de même pour que l'Afrique bien sûr soit euh, bien gouvernée, l'Afrique soit prospère. wax ni engagement engagement engagement rek ak volonté di wax tamit jeunes yi bu leen ragal parce que dëkk bi ñu ñoo ko moom suñu dëkk la bu leen ragal jël ay initiative ci ngeen bokk nekkul euh, politique yi décideurs yi suñu mag yi ñoom kese ñoom ñoo nar a jël ay décision proposer ay idées affaires ci ngeen bokk. di remercier tamit waa Sunugal 20 Sunugal 24 euh, ci seen euh, action seen engagement seen initiative yi ngeen def yëpp liggéey bi rafet na